dafa am concours boo xam ne dañ ko doon def fële ca Maroc muassasatu Muhammadun Sadis lil ulama il afariqa doon ko def bii mooy ñaareelu yoon bi ñu waroon ko def Gabon waaye mbas mi tax ñu defee ko Maroc waaye nag Maroc ñi yor lajnatu taxkim ñoo fa teew ñi nga xam ni ñooy joxe notes yi ak ñiy àtte ci waxin ñi nga xam participer nañ ñëpp nag ku nekk yaa nga sa dëkk waaye teewul. ñu woykat ñi yëngatu ci wàllu xarala yaxana lépp ci ndimbalal suñu borom ba lépp aw yoon senegal nag daf ci amoon ñetti candidat waaw bu njëkk bi mooy nga mokkal alquran lépp mën koo def tajwid ci riwaaye bu la neex ci muxtalafi riwaayat ci riwaaye yu bari ñaareel bi di nga mokkal alquran mën koo def tajwid ci riwaayatu warsh te mooy bi nga xam ne moom la marocain yi gën a fonk ndax ñoom dañu fonk riwaayatu warsh moom la ñuy jàng foofu ñetteel bi di nga mokkal ci alquran juróomi xisib man nga mokkal lépp waaye dañ dañ lay tànnal juróomi xisib gës euh, testé la ci seet foo ci toll ñun nag ñu yàlla defoon ñu génn ci yooyu yëpp macha allah am ci ñetti candidat yoo xam ni réew mi yëpp la demaloon yàlla dogal ci mbaaxam ak euh, barke alquran ki di Mouhamadul Mahi Touré yàlla na yàlla lafal cet moo jël première ci wàllu mokkal alquran ci riwayat yeb ñu jox ko prix boo xam ni na ci six dollars ñaareel bi di maam Abdoul Aziz Touré moo jëloon xifz ma tayassara moo fa nekk deuxième ñu jox ko 5000 dollars dit bi di que ci suñ de di Cheikh Diop jël troisième place ci riwayat Warsh ñu jox ko 4000 dollars wante yokal ko benen 1000 dollars muy 5000 ndax ñu doon jang Warsh ñep dañ leen yokal fa tabarakallah képp ku bokkon ci concours bi nak donté Tu fa tabarakallah ci waxinu wolof ci waaye bo participer woon nga rek jox nañ la 2000 dollars loolu lépp nag ñu koy sante suñu boroom di sant saaxibul jalaala mi nga xam ni le roi Mohammed VI mi nga xam ni moo ko organisé woo réew yépp fanweeri pays fanweeri réew ak ñaar yi ci bokk ñu ñëw léegi sax fanweer ak juróom-benn la ñoom ñépp mu woo leen jox leen ay matériel ba nga xam ni lii mbas mi du tee ñu mën ko organiser ba ku nekk dellu si réew teewul mbir mi yéwén ni mu yéwénee. ñu nag suñu ñaan boobaak léegi moo doon laata concours bi di am ñoo moo doon yàlla nañu yàlla defal sutura ba ñi demal Sénégal kenn ku ne am ndam kon ñuy sant yàlla yàlla defal nañu ko yàlla xam nañ xamuñu sax lu ñuy wax dañuy sant yàlla bu baax a baax di sant mbokk yi nga xam ñoo ci jàpp ñëpp ka ca bopp ba di professeur Rawhan mbay moo jiite mu assasa bi di ñaan yàlla yokk fanam yokk wéram ki ci topp di Cheikh Quraysh Niass Cheikh Cheikh Quraysh Ibrahim dafa tukki mooy annaibul awal annaibu saani nekk sëriñ Abdul Qadir Mbàkke ñu gën koo xam ci seen jiili Mbàkke ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di sant aada yëpp nag xam naa waxtu wee ko dul maye suñu naree lim ñëpp dina metti fa tabaarakallah waaye daañu jàpp beneen bés boo xam ni nañ ko defee woon daaw daaw jéeg waa ambassade beeg ñëpp daañu ñëw teewe ko incha allahu taala ñu sargal leen yëgal ko réew mi yëpp xam ni الحمد لله رب العالمين لو يوك ريو مي لا واي دون ديلو غناو نيغي نوي نييب دي زيار نييب دي بالو حق نييب دي سانت تكنيسيان بو باخ باخ والسلام عليكم ورحمه الله